jaajëf magistrat yi day asan daje woon nañ saliga ca mbuur macha allah xam naa war nañoo waaj pour dem fa nag ñaari at a ngi ñuy waaj rek xalil bëggoon ñoo dalal ca mbuur waaye dinañ ñëw incha allahu rabbi daje nañ fa ñoom magistrat yi ci li nga xam ne mooy bureau UMS bi changé nañ ko nee nañ sax ka fa nekkoon lañ fa tegaat waaye nag wax nañ yu bari lu leen métti ci mbir yi affectation yi ni muy amee dañu jékki-jékki gis ne nañ kenn ñoom ñu jàpp ne xëy na sanction la beneen beet mooy li nga xam ne mooy retraite yi dafay xaw a doy waar dañuy jékki ñëw ci bërëb gis saa mu nekk fa mag son bu fuuf son bu retraité Sa Ndiogou des fa ñu ne loolu daal bëgg nañ ñu xoolaat ko ministre bi nag nee affectation yi du sanction hmm. waa ñoom de son yu dañoo war a sant yàlla bu baax <coughs> ñoom hmm. dañoo war a santaat yàlla bu baax a baax comme que ñoom <coughs> ñooñu comme c'est affecté rek lañ jotagoon ci nguur gi leen loolu lañ ñam war nañoo sant yàlla bu baax ñoom xanaa yëguñu ñi nga xamante ni ñi ngi leen di jël hmm. di leen tëj ci kaso bi ba ñuy mujj ci hôpital ok ndax ñoom am nañ ci kàddu ok ndax mën nañoo naqarlu comme sa dajaloo daan ñun kat bëgg nañu gouvernement bi xoolaat ñii ñuy tëj ci kaso bi bañ naan dinañ fa dee wala duñ fa dee lii xew ci dëkk bi ndax ñoom mën nañoo taxaw xëy na yàlla mën na leen a may pouvoir boo xamante ni même buñ ci mënu daraat war nañ see mën a taxaw wax ci tolluwaayu réew mi mais ñoom bi ñu génnee seen tolluwaayu bopp rek lañ wax ñi affecte affecté ñi ñu retraité seen i fi bopp ñun nag yëfi Sénégal moo ñu intéressé bu ñu waxoon ci réew mi daal ma mën see sori mais comme que seen yëfi bopp pourtant li ñuy ki loolu noonu lépp ci réew mi la bokk déedéet bokk ci réew mi maanaam affectation yi exemple la ñoom da loolu li tax ñu dañuy jàpp ni ab magistrat day toog waxee xalaatam hmm. wane indépendant bi mu bëgg am ci réew mi hmm. gaa yi d'accord ñëw moom ñu génne ko maanaam dëkk bi affecté ko fu xam nga loolu bu fekkoon ne ñoom méngoo nañ si réew mi muy dëgg duñ si mën a affecté ñëpp munta ne par force am ñu fi nekk. mais dañoo njiit. waaw njiit dama ne ñoom ñëpp buñ mànkoo woon si lenn mooy liñ jàng kese. Hmm. mënuñu si affecté kenn kuñ si affecte rek xamal ni dañ la war a affecté mais bu ñu demee ba xam ne affecté bi kat corrigé la. Mhm. xam nañ ne kon am na si loo xamante ni ñu ngi leen koy def defuñu ko wala am na si ñoo xam ne. na kuñ ci affecté daf fekk ñu war laa affecté. voilà léegi li tax daal ñu kaas ko ñoom xam nañ ne am na si lees waxut ñoom dañoo war a na mànkoo ni kat sunum mooy nañ nañu def ba sécurité sunum réew ak suñ ñooñu réew. Mhm. su boobaa ñoom bu ñu waxee seen seen ñooñu réew danañ xam ne ñii kat ñu war a wax lañ ñii ñu war a taxawu lañ <laughs> waaye nag wax dëgg yàlla seen taxawaay ci ñun peuple bi dafa des en cent pour cent. nu ñu waroon a def. Hmm? magistrat yi Assane lu ñu war a def lu lii. joxal hélas. <laughs> ah non non non Assane xam nga. non joxal hélas yàgg nga yi trop <laughs> joxal hélas. ah non damay laaj rek bu ñu waroon a def magistrat yi bu ñu deful. waaw léegi joxal xam nga xañ na danga xam lu ñu waroon a def. yàgg mais xamoo lu ñu waroon def déedéet. ah déedéet xam na ci dara. waaw ah, bu fekkee ne nga waruñu woon a def lii moom kon wax nga xam nga li ñu waroon def. xam nga da ngaa waroon kon xaw ma ci ñoom comme nee nga ah, lii ñu ah, def xam ma ci ñoom dara alaaj bu ñu war a xaw ma ci ñoom dara waaye dañuy lii ñu def waruñu koo def kon xam na li ñu war a def. waaw léegi xam ma ci ñoom dara. li nga wax ba pare nag. Hmm? loolu jàll na sama fu. <laughs> jàll na moom yooyu waa nii sax de lii la lii ñu def waruñu koo def li ñu jàng nangam. Assane man de si réew mi laa dëkk te du ma génn du ma daw fii laay toog <laughs> ku ko daw loo. Ah, damaa daw réew mi kenn moomu. Eh, am na waajuma gis mu génn daw na de waaye moom it de dafa taf na sa foto de xuma loo ko wax nag. man mi waaw. na tudd xanaa laa fi tudd. ah ngañ. ngañ Demba. non ngañ Dawut. Eh, man sax xam naa incha allah maa ngi waajal dem Mali seet sama maam yi eh, si bëgg naa seeti sama maam yi fa lañ ko suul seetiwaale sama ndijaay yi ña nga ca réew ma alaaji magistrat yi de ñoom am na lu ñu lu ñu lu ñu bëgg ba wax ko ministre bi ak lu leen metti mais ministre bi itam delloo na leen question bi ni leen ku ñu affecté nekkul sanction la mais dafa fekk ñu war laa affecté donte def nañ ay changement ci bureau UMS e bi. ay magub jëm lañ xale am na loo xam ne bu ko seetloo ba wax ko. Mhm. Euh, ministre bi euh, tontu leen loolu leen ñi ñuy affecté nekkul ni dañ leen di sanctionné mhm. ñee bañ taxawee gis ni lii sanction la rek. wala boog mu nuru ko. loolu dafa xam nga moo tax pareen saay eh, ñoom li ñu wax dañ ko wax ci beneen forme boo xam ci beneen angle lañ ni ñu ko waxee quoi. Mhm. maanaam dañ ko wax comme si ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey man noonu laa ko déggee quoi ni ma ko déggee. Mhm. parce dafa mel ni bu fekkente ni bi dafa da nga jël benn décision doxalee neen ñi ci wàllu àtte. Mhm. ñu ne la yow mii kat ñu sanctionné la ko parce que loolu mooy politique bi nga xamante ne bi parensaay mën nay dugg ci biir kii yi parensaay xam nga ñu nga génn ñu kii la affecté la Kédougou wala ñu affecté la Tamba am na nu mu demee ñëpp xam nañ ni liggéey la parce que foofu tamit ay nit dafay nekk parce que lépp ci territoire Sénégal la mm. mais su fekkente ni bi dañoo njort ni Assane mii dañ ko wax ne ko defal lii mu ne loolu kat mënu ko def ñu yóbbu ko Tamba suba mm-hmm. loolu mooy tax nit ñi di wax ni est-ce que du dañoo jël dëkk yooyu def ko bu ñu bëggee sanctionner nit fa lañ koy sanctionner. Mhm. xam nga tey bu fekkonte ne bi ñoom ñu loolu ñoom magistrat yi sentiruñu ni ay sanction mi ngi am. Mhm. ci li nga xam ne mooy kii kon wax ja du fa jib. Mhm. mais yëg nañ ñi ñoom ci seen jëmmi bopp yenn affectation yi pour ñoom sanction la parce que Ngagne Demba Touré fii la nekkoon di wax. waaw ñu xëy yóbbu ko kii. Tamba. yaa ngi dégg. donc même ñi nga xam ni nekkuñu ci millier bi. jàpp nañ ni loolu sanction la. Mm-hmm. comprendre nga. waaw te loolu moo warta nekk mbir mi dafa war a nekk loo xamante ni bii rek. mais affectation il faut muy am. war na waaw loolu moo war a am. dama ne nit ki war a mais nag pas que ni peneen saa yi rek ma ne bon sooy mi lakkal na naa ko yóbbu fële na sori loolu bu demee noonu rek baaxul parce que territoire Sénégal fépp benn la war a doon. Mm-hmm. parce que nit kii bu fekkee ne fonctionnaire nga war nañ la mën a yóbbu fu ne. comprendre nga. Mhm. mais nag tey nga jàpp ne kii bu nekkee fii am na ay avantage kii bu nekkee fii am na ay loolu. Mhm. loolu mooy li nga xamante ne bii moom mooy jafe-jafe yi. Mhm. looloo tax nit ñi di ñoom ñu wax loolu. d'accord en tout cas daal lu mu ci mën a doon moom bu fekkente ne bi ñoom dem nañ bay yëg ni jafe-jafe mi ngi am ci loolu. aywa kon problème a ngoog. macha allah.